ajjuma ba tey gouvernement amul Sénégal muy guléet ñu toog diir bi yépp te ay jëwrin amuñu ñenn ci askan wi jàpp ne Macky Sall defar na listam ba noppi ñeneen ñi gis ne mu ngi wër ba tey ñu mu war a tabb ministre suspense bi nag sénégalais yi di ko dund vendredi ba tey ca ndoxtel la nag dañoo naroon utal agriculture élevage ak sport ay ministre ndax diire ngi nii amatuñu ay jëwrin ci fàttali agriculture Aly Ngouille Ndiaye moo fa nekkoon waaye dafa teggi ndombal tànkam gannaaw ba ñu tabbee Amadou Ba muy candidat bu bennoo Bokk Yaakaar ci jongante yu njiitu réew yu 2024 Ali Saleh Diop bi yoroon élevage ak ba jatara bi ñu gàlloon sport ñoom nag ñu ngi génn ci nguur gi gannaaw bi parti réew mi génnee ci Benno Bokk Yaakaar te monte ci benn communiqué bu ministre secrétaire à la présidence de la République di Samba Omar Ba moom nag mu ngi ci xamle ne njiitu réew mi dina taxawal nguur bu bees ki ko nar jiite di amadu Ba te loolu du yàgg dara boobu ba tey nag askan wi di xaar ngir xam yan ministre ñoo nar a boobu gouvernement réew mi Macky Sall xam ne kenn mënu koo natt ci dara ndax ku ñoome suspense ak ay surprise la ñaari fan ci weeru avril 2024 nag mooy àpp bu mujj bu Macky Sall war a jóge ca palais présidentiel ndax ki ko nar a wuutu ci la war a waat ci kanamu askan wi ñu jàpp ne nag moom Macky Sall dafa nekk di jouer kartam bu mujj lu tax nag ñu xalaat loolu mooy njiitu réew mi même bu fekkee ne du bokk ci jongante yi li mu bëgg mooy coalition wam bi di Benno Bokk Yaakaar wéy di jiite Sénégal Macky Sall nag li mu ne tekk ci list bi mën nañ ci jàpp ne tamit dafay fay daay bi nga xamante ne moo takk ci biir APR ndax choix bu amadu Ba bi di candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bu 2024 waaye tamit mën nañ yaakaar ne dafay taxawal équipe bu mucc ayib ci gox yi nga xamante ne moo ëpp doole ci waa Benno Bokk Yaakaar ñu seetlu tamit nag ci diggante 2012 jàpp 2023 askan wi dafa gën a sonn faju bi gën a jafe ci ñoom xoqatal gi gën a jéggi dayoo jàpp geek tëj bi ci kaso bi mel ni lu banaal kaso boo xamante ni amul ndox tàngaay wa waaye tamit ñu dem sax ba di ci xamle ne feebaru waga juddu na fa te muy feebar bu gaaw a wàlle loolu nag jur njàqare ndax ku ne dégg na paquetage gi ñuy def ci prisonniers yi bu fekkee ci 12 ans nag secteur yépp a gàll goose foo laal ak jafe-jafeem ndax urgence lañu taxawal gouvernement bu bees laaj bi samp nag mooy juróomi fan yi Sénégal toog te amul gouvernement ndax jural na dara réew mi ñeenti weer kepp am na lu si ministre mën a def lu naataangoom deful woon ci 12 ans lu ci mën a am nag jamono ji askan wi yépp ñu ngi xaar seeni jëwriin